que est-ce que duñu rattraper parce que je pense que di une fois on a utilisé comme ni ko wax des exonérations mais aussi des subventions est-ce que ça pas nous rattraper encore une fois c'est-à-dire defoon nañ ko après day def benn benn dina def benn des effets positifs pendant un certain temps mais après dafay dafay dafay andiwaat donc est-ce que ça va pas nous rattraper aussi. oui man je pense que c'est juste une solution conjoncturelle mm. ñu dem vers des solutions le process li ñuy wax. de la fourche à la fourchette amuloo marge de manœuvre yu bëri dul yow sa dëkk li nga mën am impôt ak taxe nga si mën mais loolu ba léegi le problème reste entier solution bi dans l'avenir mooy ñu jéem a changer suñu habitude alimentaire au lieu des du pain au, au blé alors qu'on qu'on n'en produise déjà ñu def ko au mil par exemple mil mën nañu ko am en quantité nga xam ne le prix même de baguette peut aller même à cent francs pourquoi pas loolu aussi danga koy jàngal da koy commencer si ndaw ñi par exemple au niveau des écoles ou de la pause ay ñu commencer ko te du commencer ko seen boulangerie au moins ñoo xam ne dañuy spécialisé wu des pains en en mil parce que moo dàq man ñaa danaa ko lekk bu yàgg mais gisoo ko gis déjà. Mm-hmm. wala maïs. Mm-hmm. wala aussi ñu mixer. blé ak maïs pa am na ñu ngi commencé ko di ko def léegi blé ak mais loolu comme ba maïs bi c'est à notre portée déjà le mille à notre portée yooyu mën na nekk ay solution durable yoo xam ne ëllëg même prix blé bu yéegee ñu mën nañ ko bañ a yéeg mais aussi du parce que loolu rek mooy am loolu aussi danga koy def comme leen wax sànq à la fourche mooy lan consommation boobu ñu soxla pour soit pain wala tout si qui est euh, tout ce céréales yi. Mm -hmm. wala tout ce qui est euh, pâtes les pâtes par exemple. Mhm. da nga koy produire Sénégal. produire Sénégal il faut nga aménager ay terres. Mhm. il faut ñu am ay spécialisation yoo xam ne loolu lañuy def. Mhm. terres yoo xam ne mën nañ ko utiliser pour am autosuffisance en riz en blé. en maïs et en mil. permettre ñu ñu am tous les dérivés de ces produits la ñu mën ko génnee si si production boobu loolu moo lay permettre nga mën a am une une une croissance inclusive productivité ba pare wàññi si déficit encore parce que la balance commerciale des céréales imaginez c'est plus de mille cent milliards mille cent milliards yooyu boo investir mais rien que la moitié te da ngay autosuffisant à n plus 1 wala n plus 2. mais est ce que waroon ñu woon mën a anticiper parce que je pense que li ngay wax ni am na solo c' est à dire au lieu de subventionner encore la baisse des coûts de la de la vie est ce que waroon ñu woon vraiment dem vers cela donc montré na que ni actuellement on va vers une rupture mais delluwaat ci li nga xam ne moom moo fi nekkoon alors que y' a les priorités qui sont là donc y' a les problèmes qui sont là et ça va nous rattraper est ce que gis nañ ci aussi rupture aussi. waaw mën nañ am na rupture am na rupture balaa ngeen rupture. rupture mm. dafa nekk si process. Ouais. démarrage trois mois mënoo fi teg plan yu mel noonu plan yooyu c'est des plans euh, décennal le plus souvent mm -hmm. mais loolu politique politique générale bi dañ gis peut-être peut-être xaw ma mais xam naa ne dina am vision Sénégal deux mille cinquante. mën nañ teg genre planifica plan yi mel noonu xam ñu nekk d'ici deux mille euh, deux mille vingt sept deux mille vingt huit d'ici quatre ans maximum Sénégal mën na am autosuffisance en blé en riz en maïs. nga teg nag toutes les chaînes de valeur. xam yenn moyen logistique ngay soxla xam ñaari terre ngay soxla xam ñaari ndox ngay soxla xam ñaata emploi la mën gérer yooyu yëpp c'est tout un programme loo xam ne mënoo ko def en cent jours mu nekk un clic mm. mën naa ti tembi tembi nii luy wàññi dulu sénégalais yi lii rek nga mën def amoo amoo solution yu bëri mooy wàññi taxe yi wàññi impôt bi état bi am lu mu perte aussi mm-hmm. ñi ko doon ñi doon aussi nekk si miniatures yi les meuniers am lu ñu perte parce que seen bénéfice ñu ne ma am deux milliards peut-être ils vont se trouver avec un milliard huit cent. mu da wàññi benn dix pour cent vingt pour cent seen bés ñëw am mais loolu lépp si njariñu citoyen sénégalais yi njariñu ménage bi la. lim lu baax si ménage bi aussi baax na si Sénégal yi parce que loolu mooy tax mu gën a yokk seen pouvoir d'achat. dina yokk seen pouvoir la vie trop chère.